مقتدر لأوليائك yooyu ngeen dégg mu jëm ci cheikh Mouhamadou Lamine Baara wan na leen màggal gu cheikh Mouhamadou Lamine Baara ca Mbàkke Kajoor gane àdduna ci Tuuba génne àdduna ca Mbàkke Kajoor gannaaw ba nu amee ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg te ànd ak wér baay Amadou Maxtaar xalifa Daaru Xuddoos sëriñ Moustapha Cheikh Sidil Muxtaar jëwriñu Serigne Baara ak njabootu sëriñ Baara gépp ñooy yëgal réew mi ak bitim réew bokki julit yépp bisub Cheikh Mamadou Lamine Baara gi nga xam ni daanu ko màggal ca Mbàkke Kajoor fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh leen Bara mu feggoog njaboot gi yëpp njabootu Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Mawlène Bara ci bis bu màgg bi nga xam ni moo di màggalu jumaadul ula te muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh leen Bara fane ganee woon àddina ñaar fukki fan ak juróom-ñett eh, ci weeru olof wi ñuy wax jumaadul ula incha allahu muy dëppoog fukki fan ak ñaar ci weeru décembre sëriñ bi nag di ko def ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Touba Cheikh Maodou Mountakha muy ñaan yàlla muy ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak ci teewaayu Baye Ahmadou Makhtar muy bis bu am solo ci lislaam ci yoon rawatina ci yoonu murit ndax mooy bisu faj aajo e, mu ci woo mboolem jullit yëpp ak am di jàmm yi ak bokk yi di leen ko yëgal rawatina njabootuk cheikhul xadim gi di ko yëgal itam ñi mu bokkal lislaam bi yëpp muy kilifa kilifay diine yi nga xam ni ñoo ŋànk euh, boppi turuux yi ci biir senegal ñoom ñëpp sëriñ baa leen ko yëgal di ko yëgal daayira Seexul Xadim yi yi ne rawatina ñi nga xam dañoo aju ci biir kër gi li nga xam ne nag moo ci ëppal sëriñ bi soxla solo moo di njàngum alxuraanul karim yi ndax dañuy fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te liñ koy fàttaliko bokk na ci nitu alxuraan la woon sëriñ baa ngi sàkku ci ñoom ñu jàng alxuraanul te yéen yool bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak bépp jullit boo xam ne yaa ngi bar sàq te ñuy fas jàmm ci réew mi sëriñ bi di ko yëgal ki nga xam ne mooy président Macky Sall euh, di koy sant bu baax a baax ci li nga xam ne weesu na lépp di ko yëgal premier ministre ak mboolem gouvernement bi yëpp di ko yëgal président assemblée nationale du Mame Diop di ko yëgal soxna Aminata Mbengue Ndiaye di ko yëgal président Abdoulaye Daouda Diallo di ko yëgal mbooleem opérateur économie yi directeurs généraux yi ñëpp ñi leen ko yëgal ak commerçant yëpp di leen ci wow sëriñ baa ngi ci woo mbokk yi ak taalibe yi ak am di jaam yëpp bàyyiwuñ kenn te xam ni bisu faj aajo la boo xam ni ko sëriñ bi waxee woon loolu rek lay feddali képp koo xam da ngaa am soxla wala nga xam am aajo euh, boo ñëwee ci bis boobu nga fas ko ci suñu borom dina la ko dina dina la ko saafara incha allah. wa axiru da'waana in alhamdulillahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax di julli ci nabi Moustapha di santaat Serigne Touba di wax rek ne bis bi bisu lislaam la waaye rawatina yoonu murid wépp ndax ki ñu koy wooteel di sunu maam Cheikh Mouhamadul Amin li mu doon ci yoonu murid ñëpp xam nañ ko bisam biit li mu dëppool ci yoonu murid ñëpp xam nañ ko mu doon ko yàlla teral ko yàlla yëkkati ko yàlla cërali Sëriñ tubaa lislaam nañu woo waaye rawatina ñaari kër yi ko seq muy Daaru Xuddoos ak guy mbind waaye bis bi ni ma ko waxee rek bisu yoon murid bépp la ndax ni boroom taxawee ci yoon wi moo tax li mu seq ak lislaam moo tax ñëpp war cee ñëw kon ñi ko moom dañ leen a jëlale waaye dañuy wax ne ñi mu bokkal nañ ñëw ci bis bi nañ ci teew si ñaan ñëpp teew si ñu ngi woo ñëpp. man nag li ma ci woo te di ko fàttali mooy ñu setal dëkk bi ba nga xam ni képp koo xam ñëw nga fi dinga fi ñëw ci teey génn fee ci teey. benn lor bañ la fay fekk jenn jàngoro itam ñu bañ la ko ci wàll muy muy bis bi nga xam ne ci la ñuy set setal Mbàkke Kajoor muy vendredi le premier ci lañu ci la ñu ko fas le première décembre ci ñu ko fas yéene set setal kon dëkk yi wër Mbàkke Kajoor yëpp di commune bi ci ñoom laay jëkke woo leen di woo Daaru Musti di woo Daaru Marnaan ñoom ñi xam ne itam suñu dëkkandoo lañu di woo Daaru Musti ak ñi nga xam ne ñoo nu jige ñëpp waaye Touba gi itam ñëpp kër yi Sëriñ Touba yi yëpp këri maam maaram yëpp këri cheikh yi yëpp bàyyiwuñu kenn di woo transporteur yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg ñu yóbbul ñu nit ñi ñi nga xam dañoo yoroon wàllu set ci dëkk bi ñëpp bàyyiwuñ ci kenn ñu leen di woo ñoom ñëpp di gën a soññi daayira bi nag surtout rawatina jigéen ñi kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah cheikh Mouhamadou Lamine <coughs> ci jikko ju rafet ji ca yërmande ja ca xam-xam bu bari ba ak cër bi mu am ci boromam ak cër bi mu am ci sëñ Tuba kon nag bu bisam dikkee nu di ko war a amal ca Mbàkke Kajoor fa ndigalam nekkoon sëriñ bi mi ngi woo bokk yëpp di soññi itam bokk yañ bokkal dëkk ba yëpp muy bokki dëkkandoo yi ak bokki taalibe yi moo waxoon ne man de bu wootee ku ma wuy si dinaa la defal ñaar dinaa la defal ay leer dinaa la defal teraanga eh, eh, eh, baatin joo xamante ni loolu moom moo xam nam koy defee lu waaye am ci yitte andil boo dikkee déeyaalal ak Cheikh Mahmoud Lamine Baara Mbàkke man de sama way jur mas na maa wax ni ma Mbàkke Kajoor du ku fa ñëw te fekkoo fa lenn sëñ baara boo waxee sa aajo ba mu àgg nga gas ci suuf tabbal ko ci suul ko sëñ baara dina ko faj. ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Safinatul Amaan daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sataati Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke yi ñu di leen di fàttali bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo amal waxtu woo xam ne ñu ngi mal màggal gi. di conférence boo xam ne dañ koy def at mu jot ren bii ñu jàpp ko ci le 10 décembre ci buñ nee ginaaw suba la màggal gi bis bi nag ñu ngi ko tuddee ma Massamba Diop Sam waaye itam di ko dara jaalee Serigne Mut Jaw Waalo bokk ci ñi nga xam ne ci ñuy toppoon Cheikh Mouhamadou Amine Baara la waaye itam bis bi ñu tànn ci mawduu bu am solo thème bu am solo boo xam ne Euh, fi jamono toll daf ko laaj ban gis-gis la lislaam am ci wàllu sàkku wërsëg ñu ciy ànd nag ak boroom xam-xam bu mag di sëriñ Seexuna Buso leen bis bi itam mu ngi tàmbalee programme bi 21 heures incha allahu moom lay tàmbale euh, kon ñu bàyyi ko xel di ci woo ñëpp di ci sàkku fépp foo xamante ni bi daara nekk na fa rek ñu jàng alxuraanul karim daf ko addee Cheikh Mouhamed Lamine Baara nañ ko daan defee at mu jot képp koo xamante ni bi jàng na alxuraanul karim lim bi bu ñu ko joxee danañ ko teg ci loxol sëriñ bi kon ñu ngi woon ñëpp ci bis boobu waaye nag ñu tàmbali njàng mi bi weer wi tàmbalee ndax am na daara yoo xam ne tàmbali nañ ko jàngal ba ca bis ba ñu bis ba ñëwee nag ñu dajee fee nga xam ne ci màkk Kajoor ca daara ja fa yéene faa jàng alxuraanul karim ngir ñaan ngir barke ci réew mi ngir ñaan tamit yiw wi nga xamante ni bii nekk na ci alxuraan mu wàcc ci mboolem jullit ñëpp. di ko gépp di xam le ni itam le premier décembre di bisu set setal ba am nañu consultation gratuite consultation gratuite mooy lan seetal la saw yaram xool lu ci manqué lu dala dal ñu faj la ca duñ la laaj dara loolu nag fondation Bouchard moo àndandoo bëgg ndimbal ak tàllal ay loxoom Serigne Moustapha jëwriñ Serigne Baara mu boole waale ko ci liggéeyu Serigne Baara bi kon ku fay dem loo fas loo bëgg fas ko pajugaajo lay doon jërëjëf